mooy euh, bi président lancé de 31 ans nañ jóg ngir defar euh, réew mi naatal ko ba mel ni mu war a mel fekk na kuréel bi juddu amee fleuristes yoo xam ne ak jardiniers yoo xam ne ñu ngi mat na juróom-benn junni nekk entre Dakar Thiès Diourbel ci laa leen dajale ñu jóg dafa rond-point Mermoz la ci la bi lañ ko ubbi lëkkaloo nag ak ministère bi. Abdou Karim na ak euh, direction bi ñu defar euh, ancien piste ñaar rond-point yi jël bii OMVS teg ci OMG bële pour def ko test waaye dañu fas yéene ànd ñoom nag ba 102 rond-point yi yëpp ci Dakar ñu defar ko waaye duñ ko defar rek comme ni ñu ko waxee li ko monsieur le ministre waxee ak madame le maire duñ ko defar rek bàyyi day am suivi boo xam ne jardinier yi euh, dañ fay ne di ko toppatoo garab bu dee ñu soppali ko def tiiroo def ko ni mu war a mel xam ne duñ ko defee rek bàyyi ndax euh, defar yomb na waaye toppatoo moo jafe moo wax ñu lëkkaloog ministère bi nag ci ndigal président fas yéene ànd ak moom ak fleuristes yëpp ba liñ bëgg ñu am ko Euh, je m'appelle Ndeyli Sameng, je suis technicienne supérieure en génie civil bâtiment, agent euh, de la direction des paysages urbains et des espaces publics, euh, désignée euh, chef de projet c'est de, c'est de venir visiter les projets qu'on a déjà réalisés. C'est un projet qu'on a réalisé sur euh, 10 jours. Sur, euh, sur le fond de l'État, oui, il y a des variétés de plantes, il y a des lauriers, des ficus verts et des piles de